di waa Tëngéej fier nañu ci yow Abdou Khadir Diop jërëjëf tribune yéene kaay ñëw ci lii nga xam ne mooy màngaan gi ba léegi ñu ngi jéemoo solution mënuñoo fexe ba am solution gaañaa ngay dee rek quatorze si ay néew cadavre yu nga xam ne gis nañ ko ci benn ab gaal ay néew yu nga xam ne dem nañ ba commencé yàqu daanaka seen i yax la ñu gis ay squelette documents yi nga xam ne xool nañ ko ñu fekk ko ci biir gaal gi am na si ñoo xam ne ay Mauritaniens lañu Sénégalais ñaar ñoo xam ne kenn ki Mauritanien kenn ki Sénégalais 24 ans 33 ans ay xale lañu xale yi rek ñooy mbëkk. xam boo xoolee fi leen gise ñu leen mhm. day mel ni nga jël gaal bëgg a dem Gorée. nga réer ci diggante bi teere ji Cap Vert. Mhm. te zone boobu yépp gis nga boo xesee ba réer côté boobu. Mhm. c'est fini. c'est nit dajeek yow ba mën la dimbali. ça veut dire ñoom ñëpp boo nekkoon ci désert bi xoolal da ngay xool à des kilomètres doo gis kenn doo gis dëkk looloo xew ci géej gi hmm. yoon wi ñu bëggoon jaar moom la ñu mooy mais nag drogue bi ñu ci gis moom a ci jaaxal est migrant migrants est yàlla rek a xam yàlla rek a xam waaw jamono joojee nag bu ñuy nga xam ne ñii ñi ngi faatu ci gaal yi ñii di ñàkk seenum xëy bi yeboo nag ngeen waajal de yéen ñii waa afti ñi ngeen jot seen wàll ci naar yi de comme ñàkkum xëy mi ci réew mi moom ay naar yu ñuy séddalal entreprise yu si nekk moom di nga jot sa wàll fu mu nekk nii des opérateurs de l'AFTU tirent la sonnette d'alarme vers la suppression de treize lignes AFTU donc ay milliers chômeurs ñoo fa nekk ñoo nar toog parce que chauffeur baa koy dagg ticket contrôleur bi sax boo xefee moom it day tëb ñoom ñëpp kon fu mu nekk nii lignes yi bu fekkee dañu leen supprimer rek bee boo ñoo xam ne ñoom ñàkk nañu seenam xëy ñàkkum xëy moomee si ëttum tasum xibaar yi forum du justiciable Babacar nee na affaire yi du xeex du xuloo du dàggasante du yàqante débat diine la waxtaan ngir lii nga xam ne moom mooy yoot kër tasum xibaar yi te mu ñu tàmbalee gis inconvénients yi ba ay nit gis ñàkk seenum liggéey ñu waxtaanee ko le forum di justiciable invite le gouvernement à engager des discussions nañu waxtaan parce que démb ba waa CAP nee gouvernement bi li leen metti moo di amul kenn ku am taxawaayu boo xam ne nii moo di dinañ toog waxtaan taxawaay négociation am taxawaayu defante la ñu am parce que ñu ngi leen cell te nelawul ñoom seen ak cell ñëpp xam nañ ne du ay nelaw ndax ñu ngi doxal di def lu ñuy def forum du na nag ña cell googee moo mën a ñàkk faw ñu toog waxtaane ko ndax situation bi lii mënul jëm kër en loolu du vocation état ne cell rek ah non non di doxal surtout par rapport ak difficulté yi nga xam ne ne ay ay administrés ñoo koy dund ay rawatina ay entreprises yuy créer de l' emploi te mm-hmm. ñëpp xam nañ ne ànd nekkul état moom mooy créer emploi mais liggéey aussi pour condition environnement économique média yi wala environnement des affaires aussi mën a propice à l' mën a tax émission kii entreprise yi aussi gën a viable mm. mais loolu moom mooy njëriñu état ah loolu de moom bu fekkee mooy njëriñu état lépp fu mu nekk nii gisaguñ ko ci ñenn yenn non tegaguñ jéego googu moom tànk yow doxaguñ ci de waaw laalay jofal ñu ne massa seen préfet bi wax nga dëgg de ak jag ba wër ndeysaan ñu koy nañ ñu massa wu rek daal la waa takk man dama fàtte sax sa yére tey loolu laa waroon sol tey pour wane man sama naqar naa ne man sama naqar safu leen waaye sama naqar moom war nañ ko man sama <laughs> naqar waa Tëngéej au moins war na mën a saf gouvernement bi waaw Tëngéej kon nag le témoin yéene kaay yi <laughs> nee na bii de la nation la ko tuddee Diomaye Sonko fu mu nekk boolu jàmbat lu fees dell dell dell lañu indi liñ naan ku koy nangu ngay jukki naan ku koy nangu mm. bi maire di def si xel yi jukki benn jàmbat ne ku koy nangu ñëpp taxaw banque seeni i loxo ay jàmbat ku koy ku koy nangu kenn du ko nangu réew mi fu mu nekk ne ñoom seen bool bi ñu enu nii ay jàmbat yu fees dell laaj ma boo jukkee benn lan mooy njëkk a génn immigration clandestine ma ne ko Thièye. te jàmbat la. Mm. boo jukkee rek immigration clandestine ña ngay dee. am na koo xam ne moom <laughs> borom këram mbaan lañ koy mbaan. mbaan kooku moom kii sax moo te ne moom Jurbel lañ koy nga jukkiwaat beneen paquet. inondation mooy génn. nga dajwaat beneen paquet. ñàkkum xëy mi ci ndaw ñi mooy génn. ñetti doomi penn naa réer doy na jàmbat. te ñoom bi ñu leen di fal daanaka ñett yi rek moo taxoon ñu fal leen xale yii di faatu nañ leen utal am xëy de andi yaakaar si ñoom ñu des si réew mi amagul solution ñu ngay gën di dee. inondation mbënn mi ci yenn gox yeex gox goxaan yi saa bu yebba yebbalee wax ma la taw de yebba yebbalee rek ñu bëri seen i nelaw jeex solution amagul waaye ñàkkum xëy mi ci ndaw ñi nag chômage bi nag lii rek moo war a mën a tax kon ñu fal leen te ba léegi yii gisaguñ ci solution. mi ngi ñu dikk ci enquête yéene kaay 14 sénégalais et mauritaniens retrouvés morts horreur au large de Rio San Juan mi ngi un embarquement de fortune échoue donc au large d'une commune de la République dominicaine avec 14 donc corps sans vie de migrants Boubacar Seye Horizon sans frontières nee na nag faw ñu ubbi sab information judiciaire woote assise ci wàllum euh, mbëkk mi ndax nag lu ñu jara waxtaane la fi ñu toll nii yéene bi daal dina ci. mais euh, journaliste bi li mu wax li ce cas n'est pas inédit. waaw généralement on ne euh, partageait pas les photos prises mais cette fois-ci donc ce qui veut di que du guléet. ah oui. ay néew yàgg dafa teer. te gis nga sax yenn photo yi boo ko gisee am na yu ma ci gis démb. mais mhm. li ñuy naan corps sans bi sax dañuy rafetal. ay yax ñoo ci des. oui c'est ay ay ay yaxi kese. kese ay yaxi bon. les éco yéen a kaay nee na appel à candidature recrutement des chefs euh, d'organisation. exécutif des entités du secteur parapublic appel à, à candidature dans le euh, PIP dina appel à candidature des yàlla baax na yàlla xam doy na jeu de chaise dañu ko tuddee daanaka démb conseil des ministres ba nga ne ñaata la cent ñaata dix cent de la ay teg teg gi cent dix teg teg très bien en Mais tout cas partout, hein, à partir de la primature ba administration territoriale presque ministère yu bëri lépp la yëngal yëngal gësam neuf ci quatorze euh, gouverneurs yi ñoom euh, daanaka teg teg gi nanu leen Alassane Sall démb rek ñoo nekk woon ci dëju euh, Cheikh Ahmed Tidiane Niane bi El Hadji Cheikh Ahmed Tidiane Niane sama sëriñ bi moom ak préfet bu Tëngéej ñoom ñoo fa nekkandoo woon ndeysaan di jaale ñi ñoom ñaar ñu yëkkati nañu leen mi ngi nii Alassane Sall moom ñoo jotoon na nekk préfet bu Tëngéej moom moom Ndar lañ ko yóbbu nit dof ñu def ko PCA bu fan la benn fond bu ñu ko dénk kilifa PCA bu Grand grand théâtre bu grand nit dof rappeur. sama ñaxtu gi la rek. fond des cultures urbaines moom lañ ko dénk. am un milliard. PCA. PCA un milliard lay jël. PCA la kees gi tegg waaw loolu la ñu nattal kees bi un milliard. ah nit dof doful de. dañ ko jëlee temps six cent millions ba un milliard. nit dof daal doful. mais PCA la rek. moom géré wu directement mais waaye nag. Ah, waaye tamit euh, euh, ah, mais fii est ce que xam nga ne. fii Sénégal PCA yi dañuy am trois millions ak lu teg. waaw mi ngi Sud Quotidien daal di insécurité routière accident de la circulation agression et vol euh, à l'arraché à Dakar l'envers de motos Jakarta yéen kaay bi daal na si dikk def si ab gëstu bu euh, yaatu ci moto euh, taxi Jakarta yi qui s'impose de plus en plus dans les secteurs du transport public urbain et de la livraison yenn saa yi nag moom ñu leen di rax mooy ñi nga xam ne dañuy yor seeni moto boo rombee ñu daal lay kocc le profond désaccord sur euh, euh, la réforme du conseil supérieur de la magistrature l'info yéene kaay euh, foofu la dikk jéggi Dieng daal di daal dinay wax moom ci jéggi Diop jéggi Diop nee na nag fu mu nekk nii nguuruk buur di bum mi la ñuy dund fu mu nekk nii pouvoir dictatorial la ñuy gis te lii di raam ni foofu la jëm en tout cas dañu ko singali dañu ko teg bët moom jéggi Diop ñu jàll ci euh, l' observateur daal ni ñu dem ci Odia euh, dafa dikk ci gaal ga suux euh, les ossements la drogue et les identités sénégalaises comme ni ko Simon waxee drogue ba nekkoon ci biir daal en tout cas moo yem nit ñi dañu mbëkki woon am lu mu manti lu mu ci doon yàlla rek xam ndax dana def déclaration de politique de patrimoine am am déet déclaration de politique générale bi dana ko def am déet cet exercice qui hante le sommeil de Sonko daanaka bu fekkoon nag terew nelaw def na ko bu yàgg waaye dafa mel ni nag déclaration de politique générale ak euh, euh, déclaration de patrimoine bi lii moo teree nelaw Ousmane Sonko def na déclaration de politique euh, de patrimoine bi am déet xamaguñu bu fekkee def na ko pour le pour le moment dañu ko dañu ko nëbb waaw hmm? mënu ko ñàkk bañ a def ndax def moo nekk conseil des ministres di rafetlu. li mhm. ministre yi ak président de def déclaration moom mënul ko ñàkk def. bu fekkee seulement que c' est des yoo xam ne c' est tenu confidentiel. koy def nëbb ñoom OFNAC dañ koy defee. mais moom am na possibilité génne ko. waaw moom. bu ko génnelee boppam. oui France déclaration dañ ko war a génne. boo demee France déclaration patrimoine yëpp dañ koy génne. loolu mooy la législation actuelle ne la leur impose